salaam les gars aujourd'hui tey dama ñëw pour euh, présenter leen euh, benn application boo xamante ne da ngeen di permettre euh, ngeen mën a investir en ligne ba commencer gagner seen xaalis en ligne léegi application boobu nag kenn du leen ko présenter parce que de c'est pas la première fois ma koy ma si def vidéo application bi mu ngi tudd Tesco Boutique Euh, am na ñoo xamante ñu ngi may laaj lu bëri euh, naka la ñuy defee tâche euh, pour ñi nga xamante ne da a bëgg a def ay tâche léegi il faut ngeen dugg si Tesco boutique seen compte Tesco boutique il faut ngeen dugg si seen compte Tesco boutique nit nag boo bëggee am lu bëri da ngay investir lu bëri il faut nga dugg sa compte Tesco boutique da ngay ñëw tâche fi ñu def tâche il faut nga ñëw fi ñu def tâche. après euh, da ngay ñëw fi nga xamante ne mooy fait euh, en tâche niveau niveau de tâche LV1 euh, une fois nga bëgg activer LV1 bi nag faw nga def dépôt 1000 francs naka la ñuy defee dépôt nag defoon naa ko si sama vidéo bi vidéo bi naa leen bàyyi description suuf description bi incha allah léegi une fois nga ñëw fi nga ñëw fait un tâche fait un fait la tâche maa ngi si affaire de li mooy sama deuxième compte Tesco boutique parce que man Euh, ñaari compte Tesco boutique laa yor euh, benn bi dama activé LV2 bi dem naa ba cinquante mille beneen bi nag euh, LV1 la activé gum si laa di invité ni gis ngeen man essay ni cent laa def tey si tâche yi ok gars yi léegi gis ngeen ma won leen sama solde li fa nekk li fa nekk gum actuellement mo compte laay ñëw euh, te presque bi mosuma si def dépôt dama si invité ay nit ba ma am rek ma commencé léegi nit nag boo investir da ngay jël temps léegi gis ngeen cinq mille euh, six cent onze euh, moom laa amagum te mosuma def dépôt benn def naa retrait benn yoon mais dama doon xool rek affaire bi naka lay doxee est-ce que mën nga si def retrait ou bien léegi nañ dema woon leen ko retrait bi ma si defoon dama doon xool affaire bi ndax euh, boo si defee retrait dina dem ou bien léegi une nga bëgg xam yow euh, sa retrait euh, jàll na ou bien léegi da ngay ñëw fi nga xamante moom foofu lañ def détail léegi une fois nga ñëw détail bi nga dugg si détail dañuy appuyer détail léegi ok sama gaay maa ngi jégalu mais ñaari yoon la def retrait bi mille cent franc la woon te mu ci def sax dépôt euh, trois cent treize bii nii boo leen xoolee parce que du jëriñ dara mais dama defoon euh, pour xool rek après affaire bi ndax fiable na dépôt bi dina ñëw ou bien mais dépôt bi ñëw na mille cent franc def naa si mille cent franc ak mille cent ok gars yi n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît euh, après mën ngeen dem rejoindre sama groupe whatsapp bi sax